tey li waraloon ndaje mi rek mooy yàlla dafa def gannaaw bu ñu wootee ci ndimbalal président de la république mi nga xam ne dafa jël benn feera teg ko fi nekku na dimbale collectivité locale yi ñu doon waxtaan ak feera nag ba amoon ak ñoom ay convention boo xam ne danañu jàppale ci ñu jël ci ndaw yi comme ni ko président de la république bëggee yàlla dogal ñu recrité woon ñetti téeméeri nit ci dëkk bi fii ci Touba ngir fa wut fa si ne wutal am xëy ñu liggéey yàlla dogal nag ñu tàmbali woon le 18 euh, mars wara euh, commencé liggéey bi ba le 18 avril yàlla seen salaire yi nag ñëw tey jii ñu war a percevoir seen premier salaire ci contrat yi nga xam ne dañ ko def muy contrat de un an yàlla looloo taxoon nag ma jëloon coordonnateur bi woo ko mu ñëw ak superviseurs yi juróom-ñett lañ ak euh, chef de équipe bi ma doon waxtaan ak ñoom woowuma mbooloo mi yëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey waaye ñi nga xam ne ñooy njiit yi laa woo ngir waxtaan ak ñoom sensibiliser leen buñ demee ñu sensibiliser kenn ku ci nekk am na chef de équipe nga nga sensibiliser sa équipe superviseurs yi sensibiliser leen Euh, coordonnateur bi aussi mën a di sensibiliser euh, super euh, superviseurs yi loolu moo taxoon ma woo leen di leen wax ni nit soo ko wutalee liggéey da nga koy conseiller ci li nga xam li mu li nga xam li nga ko ëpp expérience bu demee mën a utiliser expérience boobu pour mën a réussir ndax li ëpp ci ndaw ñi bu ñu tàmbalee di liggéey en général seen seen départ dañuy départ rek am gàllankoor parce que duñ xam lu ñuy def duñ xam ni ñuy doxale loolu moo tax da ngay gis commerçant bu ndaw buy baana baana buy jënd di jaayante ba mu yàgg mu perte xaalis capitalam jeex fekk ñàkk xam nan la ñuy commerce moo ko te moo ko teg gis koo xam ne day am dara dem investir ci dara moo xam ab atelier lay doon wala mu jënd dara di jaay wala muy fabriquer dara dem ba mu yàgg mu mu mu mu mu mu taxaw nga wax mu ne la ah man sama la ma yoroon dafa jeex loolu yépp nag warul daal nit koo xam ne da tàmbalee liggéey nit bu tàmbalee dafa war a réussir warul tàmbali daa di daa di échec loolu nag laay bañ loolu ku nekk gis na ko nag ku nekk gis na maîtrisards yi nga xam ne Abdou Diouf financé woon na leen fi ñu ci bare bari am na ñoo xam ne réussir nañ am ñoo xam ne réussiruñ ko loolu nag laay bañ mu dal sama personnel bii nga xam ne ñooy personnelu Touba bi ci xale yi nga xam ne dañoo ñëw tàmbalee liggéey tàmbalee am jot seen salaire ma di leen sensibiliser rek ci nañu fexe ba def ko départ ngir mën cee réussir ba 300 personnes yi lu mu néew néew bu ñu demee daa 5 ans xëy na ñu mën ne ah am nañ 10 à quinze pour cent yoo xam ne ci lañ départ woon di liggéey réussir nañ léegi ay opérateurs économiques lañ ñu ngi contribuer ci réew mi ci fiscalité bi ñu ngi investir ñu ngi emploi ay nit. loolu daal laa laa leen doon ci côté boobu laa leen doon sensibiliser di leen xamal ne ah euh, saraxe ajjuma yelwaane gaaw loolu bokkul ci xam-xam nit bu tàmbalee liggéey di am dara mu wóor la ne trois mois ci gannaaw yow liggéey amoo dajale woo lii amoo lii nga am wala six mois yi ci gannaaw lii nga téye tey ci sa salaire musoo téyewoo ko boo ko téye war a xalaat ne ah man nan laay def ba lii di yokk ba li ma dundoon ci gannaaw ci ci li ci sama kanam du ma dund loolu loolu loolu laa leen doon leeral moo tax ñu exigé woon leen ci ñoom ñëpp nañu ubbi ay compte kenn ku ci nekk bu ñu bu trésor public wiiree xaalis bi mu ñëw ci banque bi banque bi kenn ku ci nekk mu yóbbu sa xaalis ci sa compte nga am ko nga bañ a dem rek retirer salaire bi yëpp def ko ci sa poche dem denc ko yëkk yëkkati sa bopp laal def ko fa sa rakk dugg fa wala sa doomi bàjjan wala keneen nga naan ngay naan xaalis bi fii laa ko tegoon nag léegi laa ko fi teg di indi histoire ca kër ga famille bi di ci jaxasoo ko meroo bu dee sa doomi sa sa sa doomi sa sa sa rakk joo xam ne nii sa wujj yaay ko jur mu indi contentieux ci sa digganteeg ak yow say famille waaye mu indi contentieux ci diggante jigéen ña maanaam loolu yëpp man laa bañ a daal da nga moo tax ma ne leen ubbi leen compte yi am ngeen possibilité li ngeen soxla ngeen dem retirer ko ci seen compte di ci fàcc seen soxla la ngeen soxlawul ngeen bàyyi ko fi am ngeen aussi beneen possibilité yaa ngi am dara weer wu dee dana ñëw ci sa compte da ngay épargner dara loo xam ne nii da nga koy def contrat un an nga am ba un an bi jeex nga ne ah man de épargner naa ci trois cent mille épargner naa ci cinq cent mille épargner naa ci un million boo loola nga mën koo jël tàmbalee ko liggéey mu mën laa jural dara man nga sax jël dara dem def benn poulailler bu ndaw sa kër buy def vingt ganaar wala trente ganaar yi sans départ ci ni nga ko mënee saa boo weer dee nga jënd sa fanweeri poussin def ko ca di leen xont di leen xont su ñu demee quarante cinq jours nga jaay ko muy soixante quinze mille nga teg ko ne fekk te du yàq ci sa liggéey dara parce que dematoo fenn yaa ngi xëy da ngaa war a liggéey xëy huit heures lim liggéey bu treize heures nga wàcc li des ci journée bi yëpp war ngaa mën a di def dara ci sa biir kër loo xam ne war nga cee mën a développer dara donc loo booy génne ne sa rakk bu jigéen defar lii wala sa yaay defar lii wala kenn mag defar lii loolu yëpp muy loo xam ne euh, lu kër gi yaa ko créé ci kër gi ñu di ko lekk ndax man te damay toog rek opté benn bis am na ay fan yoo xam ne nii man li may reere muy bu bu dee salade bu dee ganaar bu dee meew lu mën a doon amul dara lu may dem jënd damay ratt ci xar yi ci kër gi reere dagg ci salaat si ma bay reere donc bay ci dugub ji ma bay laay togg cere donc loolu nag mooy indi développement nit day day day am xalaat am tuuti objectif ne ah man de lii laa bëgg wala fii laa jëm loolu ngeen di ci bàyyi xel surtout ci ndaw donc nag comme trois li li li li war doon rajo bi lépp daal mooy ñetti téeméeri nit lañ ñu jël leen ngeen tàmbali liggéey da ngeen di góorlu ba ñi ci ëpp bokk ñi ñi ci ëpp doole nañ fas jom ba bokk ci ñi nga xam ne seen daw seen tàmbali bii dana leen danañ ci doxee réussir ba jàppale ci seen rek jàppale ci seen keneen jàppale ci keneen maanaam euh, contribuer aussi ci développement réew mi te loolu yépp nag ngeen sant ko président de la république waaye sant ko mi nga xam ne moo samp FERA maanaam ba FERA di di accompagner collectivité locales yi bañ mën lii tey donc loolu sant boo directeur FERA mi nga xam ne aussi président jox na ko li mu ko jox mu xam ko jege euh, collectivité locale yi képp koo ci xam ne nii man bëgg ngaa jëflanteeg moom man ngaa jëflanteeg moom nangu nga ko dana ànd ak yow ba liggéey bi ak si fii. le coordinateur du projet FERA les superviseurs et les chefs d'équipe pour euh, faire une mise au point sur la situation de ce projet. un mois après son démarrage. Vous le savez, nous avons une convention avec euh, le FERA. Le FERA, c'est le Fonds d'entretien routier autonome. Euh, ce contrat vise à recruter des prestataires de services au nombre de 300 pour le désensablement de la voirie communale et de la voirie nationale au niveau de la commune de Touba Mosquée. Aujourd'hui, donc, l'objet de ces rencontres est de faire l'évaluation de ce travail un mois après. Donc, euh, cette rencontre également a permis aux maires de voir les problèmes, les difficultés auxquelles les agences sont confrontées sur le terrain. Et il ressort des débats que quelques difficultés ont été notées, donc euh, liées au matériel. Mais le maire a donné des assurances que déjà un appel d'offres est lancé pour euh, l'achat de ce matériel-là. Et d'ici quelques semaines, ce problème ne sera qu'un mauvais souvenir. Il a également profité de cette occasion pour sensibiliser les jeunes, les travailleurs, les prestataires et partager avec eux son expérience d'entrepreneur. Parce que l'objectif également de ce travail, de contrat pour les jeunes, c'est de faire une transition vers l'auto-emploi. Donc euh, il s'agit donc pour euh, le maire de sensibiliser ces jeunes que d'ici un an, voire deux ans, tous ces gens-là qui travaillent autour de ce projet des entrepreneurs. Donc c'était une étape importante dans son message avec les jeunes, que véritablement ce travail-là ne doit pas être une fin en soi, mais également servir de transition pour les amener véritablement à être des aspirants entrepreneurs, voire des entrepreneurs dans un futur proche. Avec les retours que nous avons, les réactions que nous avons, qui nous viennent des populations, qui nous viennent des autorités religieuses, des autorités euh, sociales de la ville, il ressort que véritablement le travail se passe très bien. On a constaté que véritablement les, nos routes sont véritablement désensablées et le travail se passe très bien au regard vraiment des retours que nous avons sur le terrain. Non, nous lançons un appel en dehors des de leur dire que la ville de Touba travaille pour elle. Donc il est tout à fait normal que des fois ce travail peut causer quelques désagréments. Donc, donc nous lançons un appel à ces gens-là pour qu'ils, qu'elles collaborent avec nous pour leur permettre également de véritablement atteindre nos, nos objectifs par rapport à ce, cette mission-là.